en wolof en wolof déglu leen déglu. on va répondre après ah, on va répondre après. à l'ordre public lan moo ko indi actuellement. man maa Youssoupha Camara avocat. collectif ak Ousmane Sonko. man ak Ousseynou Ngom ñoo fi nekk. Djibi Diagne ak euh, Abdoulaye Tall. dañ ñu woo ñu ne ñu Ousmane Sonko finalement waa G waa section recherche arrêté nañ ko nee na parce que dañ dafa def trouble à l'ordre public. li xew nag du dara lu dul Ousmane Sonko dafa genn këram day ñëw ba mu ñëwee ñu ni ko da ngay jaar fii ak jaar fii mun leen nag man citoyen la man maay tànn fu may jaar dégg ngeen sax ni préfet ñëw na ba foofu pour wax ko ni ko du ñu bàyyi plus de trois véhicules ñu accompagner ko cinq véhicules donc comme ni ma ko sama sama naataango bi waxee moom ba mu ñëwee aussi ba gendarme yi ne dañuy désarmer dañuy du moins dañuy arrêter ces gardes dafa leen wax bu leen bu leen résister bàyyi leen ñu def seen liggéey donc Ousmane Sonko woowul kenn déggu leen fu mu wootee à l' insurrection déggu leen fu mu wootee au trouble à l' ordre public fu mu trouble à l' ordre public ku nag sa kër ni da ngay yoon mbedd mi ñu gàllankoor ko am ay manifestant am ay gendarme yu taxaw ni la da ngay jaar fii par force bu la neexee ngeen du mu fa jaar parce que loolu nga dinañ leen posé question li tax ba nga bay nga yoon ni da jaar fii mu jaar fi déedéet ñun ñëpp moo ñu ku nekk am nga droit ak yoon sa yelleef ak sa kii constitution moo ko wax donc Ousmane Sonko am na droit jaar foofu état bi am na moyens suffisant fekkee dañu bëgg rek mu ñëw fépp bu mu bëgg jaar li ñuy mobiliser si gendarme buñ ko buñ ko bu mu bëgg jaar daan fi indi te du def si mi mais est-ce loolu du entraver li nga xam nga ñun ñun ñun Ousmane Sonko Ousmane Sonko du loolu problème am du loolu mooy ñee li ñuy calculer seen provocation xam nga fekkee fekk fekkee gëmoo yàlla da ngay ragal moom amul lu muy ragal donc bu ñu provoqué itam dañu fi fekk rek ñu taxaw. ñun ñoo tant que ñoo ngi si yoon wàcc ñu yoon bu ñu provoqué duñu wàcc yoon. est-ce que lii du entaché procédure bi nga xam ne. mënul entaché mënul entaché bi jëm si audition bi parce que juge d'instruction il va prendre acte du fait que il est empêché ku ñu jàpp yóbbu section recherche mënoo ñëw c'est tout. c'est pas daal ngeen gis ci mbir mi. non li si li si a wax si loolu. mooy actuellement mi ngi section recherche. donc beneen la. boo xam ne bokkul ak li taxoon ñu convoqué ko ñi ngi dem répondre ji si convo si ah, ci arrestation boobu li fa mënti am tamit bu jaree ñu aviser dinañ aviser mais liñ ñu leen mën a xamal daal mooy euh, li niñ ko jàppee nii amul rapport ak liñ ko convoqué woon xew na teg nañ ko si ndoddam ñi ngi dem wuyi mais amuñu luñ tiit wala lu ñuy xalaat parce que mënuñu tey jii am lenn loo xam ne mën nañ ko reprocher Ousmane ko parce que yéen bu dee tamit nekku leen foon am na ñu leen fa nekkal gisu leen fu mu wootee gis leen fu mu déglu dégle gisu leen fu mu joxee ay conseils dans ce sens. est-ce que yow gisoo gis ma. bi daf ko ne boo mënatul euh, avancer nga mais mais loolu moo am si début oh, moom la ñu respecté mais biñ demee ba à un niveau ñu ne ko fii doo ko jaar. loolu dafa indi problème parce que nag bu leen fàtte ne dañ nekk dans un état de droit citoyen am na sañ-sañ jaar fu mu mënti neex pour yegg fañ ko soxla loolu yaakaar naa ne kenn mënu si topp nit. mais est-ce que moom laay wax du si moom. du si moom bon ñu leen di gërëm parce que dafa am liggéey bu ñuy